est-ce que foot bi du. Mhm. fii lépp déparé. Mhm. bi nga peut-être boo doon euh, déglu Ousmane Sonko da nga ko waroon convoquer sa sa sa bureau. Mhm. nga déglu ko. mais est-ce que du foot bi nekkul ci connection ni ni nga ni nga waxee ak moom. Euh, directement et peut-être que euh, convoquer woo ko. ñun noonu la ñuy convoquer xaaral ma la ma madame. xam nga sénégalais yi malheureusement dañoo xamul nu ñu mbir mi di demee gis nga dossier bi bu mu ñëwee man jëlaluma ko sama bopp. man Ousmane Sonko xaw ma ko dama toog sama bureau sama chef moo ma woo bureau am ne ma diw ndaw si lii ak lii moo ko dal yow laa gën a wóolu si unité bi parce que lu fi nekk enquête boo xam ne daf ma jaaxal yow laa koy jox demal nga lijjantil ma ko bu ko kenn xam c'était la première fois mois je prenais les déclarations et je tapais tax damay jël déclaration bu ñu génnee ma saisir nelawuma deux jours pour def loolu comprendre léegi bu ñu demee ba bu ñu koy convoqué dañu may dama ko ne dama war a convoqué waa ji mu ne ma bu ñu ko woowee du répondre demal ba këram. ah moom moo la sa chef moo la wax. moom moo ma ko wax. Hmm. ma bind ko message ma woo ko d'abord ma bind ko ma ne ko man la diw. bu ma ko defee pare aussi dama capture message bi ma yóndi ko sama chef ma ne ko ah woo naa ko répondrewul ma bind ko message bu ma ko bindee message nag jox na ma adresse këram suba dama fay dem même jour boobu aussi daf ma ne rendez-vous 10 comme dama doon liggéey guddi gi yëpp 4 heures du matin laa nelaw jour boobu 10 heures laa yeewu après mu bind ma message. da nga waroon dem pour jox ko. pour jox ko convocation mu woo ma message ne ma monsieur Touré je vous attends on avait rendez-vous à 10 heures boobu laa jógee ma ne ko j'arrive ma jël sama oto ma dem bu ma ko joxee aussi gis nga fu ma ko joxe eh, kii bi eh, convocation da ko décharger foofu laa ko photo directement yondi ko sama chef moom aussi mu yónni ko chef am. et après vous n'avez plus. on n'a plus jamais aucun contact avec lui. Eh, xam nga un dina ñu dee ñun ñëpp dinañ taxaw si kanam yàlla ba si kanamu yàlla amul kenn koo xam ne mun na la wax ne am naa contact ak Ousmane Sonko ba affaire yi jeex mais nag xam nga boo nekkee yow kese et eh, y a un de médias yu lay xeex malheureusement te aussi tu es novice xam nga man dama am bu ma amul xam ni doo wax ne da nga am courage mais man bu ma amul woon courage damay dof wala ma daw ma génn réew mi parce que tellement man koo xam ne yow. yow da nga doon toppatoo say mbir rek di julli yow di déglu say alxuraan di auditionner ay nit di def ay PV di defee rek ñu jékki-jékki rek on fait de toi le diable loolu foog nga am courage yàlla jàppale la dëgg pour nga mun si génn moo tax dama si sant yàlla vraiment di sant sama waajur vraiment di sant aussi sénégalais yi parce que si jàppale ça se ça Sénégal nit ñi romb nañu si état de manipulation nit ñi dañoo dem ba léegi muus nañu c'est-à-dire ce que le colon arrivé à faire c'est-à-dire di titrer ay journaux di takkal ay nit léegi boo ko defee sax kenn du la liir alors à parti parce que parce que bi may wax accusation yi tout à l'heure dañ ne euh, da nga prévenir Ousmane Sonko da nga am ak moom des contacts irréguliers loolu kan moo ko wax xaaral xaaral loolu en fait madame xam nga dama lay wax ah, ils ont sorti xam nga li ngay def li ngay def euh, Touré Touré won ma won ma SMS Touré won ma leen won ma leen Touré xam ah, nga j'ai j'ai mon téléphone avec moi. Ah. mais non tu peux tu peux tu peux prendre je vous montrer je vous amener demain les SMS ba pare ma jox la deux numéros. Ah. vous faites une réquisition. non non y a pas besoin ce sont ces ce sont devant le juge. j'ai donné au juge les SMS mais justement. du la expliqué. léegi madame foofu comment les SMS là alors ce que je veux savoir. cest ban moment. la mbir yi déclenché wu. Ah. Euh, ba nga am l'impression que tu es en insécurité. Mm-hmm. Euh, ñu ngi lay ñu ñu ngi lay topp. madame xam nga gendarmerie c'est une famille gis nga de la même manière que yaa am na ñoo xam ne ñu ngi service renseignement am ñu ngi fële c'est une famille dafa am ñoo xam ne juub la ñu ma xamee gis nga mbir mi dafa commencé rek am ñoo xam ne rapidement dañu ma ne diw ñu ngi sa kaw moytul. am nga ñoom am nga am dañoo xamul li quand vous êtes au sein d'une famille famille la gis nga man ba léegi. je continue à. est-ce que vous aviez ñu ngi madame am na yoo xam ne jarul preuve man j'étais daal xam nga madame jarul wax xam nga je ne veux pas aussi trop xam nga man man je voudrais protéger les intérêts de mon pays gis nga man bu ma génnee gendarme ba léegi même technique lu ñuy defee enquête lu ñuy arrêté nit bugguma si waxtaanee parce que dafa am ay nit yoo xam ne man maa leen formé jàngal leen ko ñu ngi koy def pour man ils servent l'État ils sont sous pression ñu ngi leen di def looloo xam ne des fois du seen bëgguñu ko mënuñu si dara moo tax moi aujourd'hui je viens ici je me pour essayer de trou de trouver une solution pour que ñooñu suba parce que xam naa leen xam naa ne ñooñu so bonuñu c'est des gens bien peut-être qu'ils font leur travail et que y a une certaine pression politique yoo xam ne da leen di def looloo xam ne waruñu ko def te loolu pour ñu changer ko il faut pas que ñu xam nga man bu ma demee si tool yi di liggéey nit ñi ñoo ma woo ne ma mon capitaine ce que tu fais là li boo ko defee tu si toi le militaire tu laisses les autres loolu moo a jëlee si tool yi ma ñëw fii parce que dama xam ne ils ont raison xam nga bu mbir yi commencé man dama ne y' a pas de souci comme affaire yi demee na nii naa bàyyi mais j'ai compris que c' était pas la conduite à xam nga Pape Alé Niang lan la ma waxoon au début daf ma tu es trop naïf tu penses que les gens seront légalistes avec toi jusqu'au bout parce que moi j'ai toujours été légaliste gis par exemple ce que j'ai pour combattre wala pour faire de la politique ça ce serait ce serait ça la traîtrise parce que man euh, li ma am yëpp gendarmerie ak état du Sénégal moo ma ko defal tey boo gisee ñu xam capitaine Touré ñu xam gendarmerie moo a formé ñoo tenue yi ma c'est-à-dire tout ce que j'ai c'est la gendarmerie qui me l'a donné moo tax man si je ne peux pas protéger aujourd'hui la gendarmerie man je ne peux pas vilipender la gendarmerie xam nga gendarmerie du ay nit ay individu c'est une famille gis nga tey même quand on m'a fait une cagnotte il y a des gendarmes qui ont contribué de manière anonyme c'est pour te dire que moi l'État n'est pas mon ennemi les gendarmes ne sont pas c'est un c'est une incompréhension xam nga problème bu amee ku ne il essaie de sauver sa peau moi je comprends mais n'essayons pas de personnaliser les choses bu leen bu ñu dëkkloo ñi ñu fu ñu dëkkul waaw c'est ce que je C'est un sujet.